waa mbokk yi ndeysaan troisième combat de la soirée ngongu Baye Demba à droite doomu mbër à gauche doomu mbër Kër Massar Baye Demba école de Abib Ndiaye Baye Demba ngeen jàkkaarlool doomu mbër dellu na gauche moo nekk léegi droite bokk boo xoolee ñaari njoor lañu ñaari njool ndeysaan ñu ngi lewaatoo tey di samedi ak Bamba Faye ak la maison de gardes du corps du Sénégal mu ngi koy dóor de mu koy dóor de Baye Demba ngi koy dóor de doomu mbër ngay fayu waaw fayu dóor fayu moytul loolu mu lay def bu sottee dina la daan daan na la waaw doomu mbër daan na daan na daan na ko jël bu leer yàgg maar. cinquième combat Sa école de Balla Gaye Kéemaan mare à droite ñu ngi lewaatoo njool ak ñaari mbër yaa nga ca door na ko mooy yéen ñi de seen combat bi mën naa yàgg dóor waaw dóor xanaa amoo góor droite yow góos rek ngay dóor dinañ la daan wala daanu nga waaye dangay daanu kéemaan kéemaan doo génn foofu wala kéemaan mbaa di nga génn fii kéemaan doo génn kéemaan xanaa nga wane kéemaan dëgg moo lay génn fii te dar dar na de daan na ko de daan na ko bu yàgg ay Babacar taalal sa micro bi. doomu mbër boo bëree troisième combat bi daan. ah moom moo daan Baye Demba. bëgg naa la. waaw waaw maa ngi lay ziar Babacar. yow foo dëkk. maa ngi dëkk Kër Massar. waaw waaw Kër Massar waaw. bi mooy sa ñaata combat ren. bi mooy sama deuxième combat. ñaata victoire. waaw beneen bi ah beneen bi dama péré woon quoi ñaata par décision médicale. waaw waaw bi mooy sama deuxième combat nag bi looy wax ko. waaw maa ngi sant gars yi rek ay ñoom Aliou ay ñoom Paa Fall ak waa usine ba gars yëpp maa ngi lay sant ak sama gars yi ne ñoom Tangam Tafa ak suñu entraîneur maa ngi koy bëggee waaw vraiment baax a baax waaw ndax a jàpp na ci combat bi ñun ndaw lañ mënuñu dara ñoom ñoo ñuy tedd xam nga di jàngal bëre ak lépp quoi waaw. kontaan ci waaw waaw bëgg waaw. Oh, nangu maa ngi lay bëggee Saliou dama koy nuyu di kenn du yow yaa wóor maa ngi lay bëggee Sall ci loo ne. maa ngi sant maa nga sant bu wér. kontaan ci yow. la ma waxoon rek yow moom maa la bëgg. yàlla na sa jàmm yàgg. yow it yàlla na yaa baax. lépp lu ma la yéene naa ci jiitu. waaye kenn du yow. kenn du yow Babacar. yaa wóor borom Leewtoo TV. moo ko wax. yàgg maar jàppal ne ku la bëggati bëgg ko. loolooy dëgg Babacar waaw. moo ma bëgg Papa Ndiaye yaa ca combat ba. waaw waaw. waa eh. liir waay ah. jaaraama wulli. maa lay bëggee. waa ni def. cay wulli. waay wulli waay. kenn du wuli kenn du wuli waaye salaam alima ngoog bëgge Saliou Khoule dugg si na ci stade bi kenn du sama waajooju combat ñaar ñi duñu bëre jóge fi ah, loo ci mën a dégg war nañoo bëre jóg fi de galaay borom xaas galaay xaas ah nañ la ci xaas gi galaay ci xaas sëñ Ablaye Diop borom xaas ñu ngi koy nuyu suñu xarit bi war nañ ko. seet. waaw demoon naa këram. dañ koy war nañoo ànd dem yenn ju këram. dañuy yenn ju kër sëñ Ablaye Diop xaas. ndax mu xaasaale. door door. da lay gaañ door na ko mu waaj. door nañu ko mu waaj door nañu Farouz mu waaj njalabaan mi neexul ñebe de kii du ñeexum ñebe de yàgg maar ay waay njalabaan yaag Farouz bëre leen. am na ku ah, sonn yaa lekk avance de. ñoo lekk avance bu jàmbur de. Lamine ñi dañoo sonn de. ana parfum bi. kii moo tudd nan laa ilaaha illallaah white cologne kenn du Lamine sa parfum neex na Papa Ndiaye moo jigéen kese lañ tëj ndax wóor na. moom kese nee na kër gi day gàdde kenn nekku fa. est-ce loolu wóor na. borom kër gaa nga màkka. bu ki daawee su ko dénki seel de lamit. ah waaw boo ko dénkee bu ko lekkee yaa tooñ si ko. su ko dénki seel maa la ko wax. bu réeree ko laaj. laaj ba xam ne seel seel. laaj ba xam na lan mooy seel. yàgg daa xamuy ay seel. xam ngay seel. waaw waaw. lan mooy seel. seel ah daanaa ko dégg ci ci xar. Wolof Njaay dina ne bukki kenn du ko dénki seel. ci xar seel. waaw sel ndawal ndawal laa ko gën a foog de. ndax am yàgg ñëw na de. kii laaj Papa lan mooy ay seel. seel non xaw ma ko nag. dañ na bukki kenn du ko dénk seel. xaw ma ko de wax dëgg yàlla. ay Papa Ndiaye ci réew ah, xaw ma ko de xam nga sunguf. sunguf xam na ko. non non xaw ko. kii nañ ko génne seen kër. yow xam nga sunguf yow. waaw lan mooy sunguf. Babacar sunguf bëri na. waaw doo ma wax sunguf bi nga xam. man xam mooy mbëri yi ñuy laal rek. loolu kese nga xam ci sunguf. balaa ñuy bëree. beneen sunguf amul. ah bu amee tamit xaw ma ko de. sunguf bi ñuy lekk ah, ah, ah, est-ce que amul. sunguf bu ñuy lekk. waaw. non jotaguma ci de. la ilaha illallah ja. ne ko meew sax sunguf la meew. meew sunguf la ma. waaw dëgg sol na ko de. cere balaa doon tere sunguf lay doon. dëggantaan buñ ko soqee. dañ koy wal mu doon sungu waaye lii man day booy town yi gale yi pour ñaar ñuy toog nañu xam ne suñuy waay lañu maag Lamine ñii yàllaa ñu booleeg ñoom muy liir muy wulli li ngeen di gis suñu digganteeg ñoom kaf rek la noonu la demee kontaan ci yéen jaajëf lu arbitre bi décidé arbitre liñ bëgg a def eh booy ñoo jël nga drapeau Saliou Khoule booy ñoo jël nga drapeau bu jar ay jàmbaar lañu ay xeexkat lañu ay bërekat lañu junni nga mérité booy loo jóg nga mérité junni mujj na mat junni mat nga junni waaye booy loo ndaanaan la ay borom jom ngeen Pape Ndiaye sa combat bi la yaa soxo yaa bon yaa wut ak Lamine ñu ngi leew toowaat ñu ngi leew toowaay boo dee étudiant xoolal or la maa ngi seen nag xale bi nga xam moo leen wax ci laaj Zarko 2 à droite Yagamar xam nga ma ne. Valère turu turu Ndiago la de. Valère yi. eh na ko door mu wadd door na ko mu na Sarko ba mu ay Valère. Valère lii nga doon Sarko xool Valère. xool Valère yi na lan la li xew yaa ko def Valère door jàmbur ba mu toog xoolal yaa ko def nii ba lu xew mu ngi koy yëkkati ay Valère ay Valère Valère gaañ nga Sarko de. booyloog soow ma booyloog soow ma kookoy bëre drapeau Saliou Khoulé booyloog joowu ba ak soow ma demal ci combat bi maar waawoy ah ak Njalabaan Farouz ngeen jàkkaarloon Njalabaan leen woon ginnaaw kenn du Papa Ndiaye séeri Odexia Papa Ndiaye Odex Siao waaw loolu am Lamine Seck moom mu ne Babacar borom ak yaay mu ne ko loolu am xaadim ak yaay laa dëkk nag wallaay fa laa dëkk. yow yaay yow yaay jarbaatu maître Pape Sène yaay rakkam yaay xaritam. loolu ba tey dëgg waaw maître Pape Sène ñu ngi koy ziar. kenn moom. moo la jàpp moo la ñu jàpp ko. ma jàpp nga jàpp. ban parti la bokk. dégguma la. ban parti la bokk. APR bokk. fa laa bokk léegi. kon man it fa laa bokk. ah Saliou Khoulé suñu xarit baa ngi nii borom. suñu doomu ndoye Ngom. yàlla na bi yàgg moo tax. waaye xoolal wu ñu la mu grand bubu. noo ko tuddee nga ne ko parmi. les les meilleurs de sa génération. ah c'est le de parmi les meilleurs. moo man yëpp. kenn du Saliou Khoulé. waaw da nga def yëpp kilifa boo amee kilifa da nga def yëfu kilifa moo waral liiru jaan waay gis nga ko gis nga liiru. wuli daa mel liiru daaneel na ko tey de. Eh, wuli daa bëgg daa bëgg foofu rek daa bëgg animé rek. liiru liiru liiru waaw. ah yow pour yow place lay wut. place liiru di la dóor de. kenn jël. nañ ko bàyyi rek géej waaye. kenn bañ koo kenn bu ko jël da nekk monument bu toll nii. du monument de. lu mu doon. sati waay li liya neex waay liiru liiru jàmm du ma ñëw du ma ñëw déet waay journée yéraale boobu du ma ci ñëw bul waxati lii liiru séréewul dina la gaañ ndeysaan ndeysaan mu bañ daa diis dafa diis dalay daan daan na la awoy dala ëpp doole naagu waaw dafa naagu ci combat bi da njalabaan daan nañ la Farouz daan na la c'est bon maar Aliou Khoule drapeau Babacar la sëñ Saliou maa ngi lay bëggee noo ne mbaa na nga jàmm. Aba maa ngi siyaar sëñ Babacar. kontaan ci drapeau bi nag parce que li sama yëf la. wóor na Serigne Touba kër ga nga yendu yow xam nga lépp am na loo xam ne jaru sax ma koy wax yow ma ak yow moom benn lañ yàlla na ma la yàlla fayal. amin waay yow kenn gënu la ndax doomu aadama dama ne baax rek lañ koy doy te yàlla may na la ko ba mu doy sëg yàlla na yokkute yàgg. amin amin Babacar yow sama waayu bopp nga li ma la waxoon rek man maa la bëgg. waaw ah, bu la neexee yow sax bu ma bëgg garaaw mais man moom sa soppe laa. <laughs> mais tey noo gisee lamb ci al drapeau bi ñu tuddee. waaw bëgg rek bëgg rek Bamba moom aw ma fayam li ma wax rek ba bàyyi ko ku tedd ki rek naa ngi koy bàyyi ak Serigne Touba mën na lu ne moom moom ñëpp Cheikhul Khadim mën na lu ne bàyyi naa ko ak Serigne Touba day jaay baax rek turandoo ma ko gën a baax. nga ànd ak sa mag. as su xumee waaw kii fu ma dem lu ma moom ba may xale ba tey. Euh, dama ko rus duma si gis ak xool ko dama am kersaam ba mu xam ko moom it maa ngi koy bàyyi ak yàlla waaw amatuma yaay amatuma papa mais nag am naa ay sœur ah. hmm. loolu daw na yaram soxna su maa ngi lay ziar. waaw Babacar maa ngi delloo ziar bu baax a baax euh, tout d'abord maa ngi leen di sant ñoom ñëpp parce que vraiment yow particulièrement yow parce que vraiment ba affaire bi taxawee ba tey yaa ngi si tous les jours yaa ngi fay ñëw. ngi lay gis ak Saliou ak yëpp vraiment yow ku baax nga ku baax nga yow lim la ñaanal rek yal na leen yàlla fay Saliou nag vraiment mënuma wax ci moom te yow xam nga ci dara ndax bu fekkee rakk diñ naan dañoo toppante yàgg moom mu sës ci yow te rëkku la donc respecté na ma jox na ma cër faale na ma xam na may kan ndaxte gis nga ko wax na la ko fu muy dem dina ànd ak man lu mu xam dina ma wax donc xeebuma benn yoon te mënoon na ma xeeb parce que li xale yi di wax xew na fi mu nekk nii macha allah yal na ko yàlla lafal cat su ko neexoon xeeb ay mbokkam wala dara mais xëy na wax bi ma wax it du parce que ku mu bokkal rek Saliou respecté na la kon nag maa ngi koy ñaanal yàlla na sut ay waajuram ay fan yàlla bàyyi ko suñu kanam yàlla may ko lépp lu mu bëgg segam ñoo bokk ndey ak baay saa su ne te yàlla lafal ko cat daal laa koy ñaanal loolu laa koy ñaanal saa su merci beaucoup Babacar kontaan naa trop drapeau Salim Khoule la ñu. man lu may daw xam nga jëmee kees saytaane la te naa fex la yow avant gis nga làmb ji ni mu demee moo tax may leen avant may bëri nan ma jox sama xaalis. ah déedéet su ma amee. léegi nan laa jëlee sama xaalis. mais reliquat après combat la. sama avance da nga dem fédération ñu jox la ko ah. fédération Balla Gaye ko lool. damay bu mu lay jox. loolu yow Lamine dara ëpp la ci. yow xam nga ni damay kee saytaane te naa fekkal la mën a sot pour wër. li ngay wax nit ñi am booy ñaane dana fan sam nga. day sóob waxul da nga koo gis daw topp. c'est pas vrai c'est pas vrai boo day wax lu ko neex rek day neexal daa bëgg Balla Gaye bëreeg moom rek moo tax muy jaay làmb ji waaye Balla Gaye bëreetul ak moom. Balla Gaye bëreetul ak moom ndax comme que nee man fan sam laa fu ma gis damay doon laax suba man Balla Gaye dee naa ko jëndee kenn Balla Gaye dee sama rek sama xarit. en tout cas nee na tuuti yoon na fiir na. waxul dëgg dama ko romb jóge entraînement ma jóge géej déglu ma rek mu ñëw ma liiru yaa ma daal di ko waaye la mu ne su ma la jàpp dama leen ma ne ko da ngay moom na yow su bëggee bëri Balla Gaye waaye lii muy tax ni lii muy wax ni xamul li mu def lii muy wax ni day tax Balla Gaye li mu def day tax Balla Gaye du bëri li sañse la rek li sañse rek la nee na Boy Niang du bëri Balla Gaye da ko ragal da ko ragal Balla Gaye yaa ñu may yàlla Balla Gaye lan lay ragal ci Boy Niang na jël Boy Niang dafa daan Sa Thiès Boy Niang li muy Balla Gaye il bat le frère de Balla Gaye il va avanter kan mooy frère de Balla Gaye Sa Thiès Boy Niang le Tefacoli jëlal ko jëlal ko mu daan leen. Eh, yaa ngi koy reede. non non li may xam li muy wax nii teg ko fenn. mais tey trois morceaux la def. oh trois morceaux loolu nag. waxoo dëgg yow yaa ñu ne yaa ñu ne yàlla. gàtt yaa yow Babacar xam nga ne daanaka Babacar wax rek. non daanaka nga ku ñëw rek Lamine Lamine daanaka la wala ma daanaka. ku dàqale ah, Lamine mu ne nga ne lan Lamine. ku dàqale ku dàqale ku dàqale. non tey moom mu ngi lay dàqale tey. non nag gis nga gannaaw li mu soxla foofu la. waaye man su ma neexoon sol trois morceaux waaye dafa tàng. chaque jour ma dàqale. tàng su ma ñu ne la tàng xam nga kii ba ma ko dóoree ba léegi day ñax rek yaa ko dóor yow. mooy sëb guy. mais wuli mais wuli daal yéen ma may ak ak ma may rafet na. naa yow yow man noo laa xam. teraanga eh. man lii moom ko jox man du ma doon journaliste. daal yaa ma ko ma doon journaliste. wax nga. man du ma doon journaliste. VIP as. VIP sob. journaliste bi ma ne. xanaa wulee la fa yóbbu. wulee la fa yóbbu xanaa. waaw waaw waaw wuyu ma léegi Nicolas léegi Nicolas ci kaso bi. te ay acteurs lamb ngeen. mu ngeen koy wax. kenn yéenewu ko kenn yéenewu ko ñoo ngi ñaan yàlla yàlla génne ko ci jàmm ndax li ko Nicolaay dafa baax ci làmb ji wuy ma li Nicolaay dafa baax ci làmb ji ndax dama tëgg combat bu mag combat bu mag la tëgg bu neex bu Sénégal yëpp di xaar comprendre nga ñuy xaar mu ñëw ci bis ba te leer na ma dina taxawaat na yeneen affiche lii su ko dalee kon dañuy ñaan yàlla. wax dëgg yàlla mu génn ak jàmm delluwaat ci ak tuutam. am na solo ku baax la ah. ci yow ah? loo wax ci kaso bi. di ñaan yàlla suñu borom. ñu bàyyi ko parce que li mu taxawal comment yi mu taxawal képp war naa ñu bàyyi ko di ma ñaan ministre de justice di ñaan Macky Sall le président de la République ñu dimbali ko parce que ñaan yu am mënuñ koo bàyyi maa ngi woo maa ngi lancé appel le président la République ak le président surtout ñu libéré li ko laaj mu liggéey lam ji taxawal comment comment yi neex li neex. Lamine waa Junne Boy drapeau Saliou Khoule junni la Lamine Boy moo takk téere yu bari yi lima spécial bi drapeau suñu doomu ndey Saliou sama doomu ndey na ko déedéet neexul deret de drapeau Saliou Khoule ah na waaj de waa na nekk junni piir de moo gën a wóor 5000 mat sëkk boo manqué du baax ah xaw ma écho xaw daal moom doy na waar waa bu ñu ci naxee du sotti waaye Lamine drapeau Saliou Khoulé la ñuy bëree borom Sik FM door na ko ah, may nuyu ay sëram ñoom day Khoulé door na ko de ñu ngay xeex de Saliou Khoulé sa bés bi sa drapeau bi nar naa saf. waaye booy ñoom junni junni agos door eh door na ko de borom Sud FM mu ngi lay door de laa ilaaha illallah junni booy ñoo junni junni junni matal junni booy fayu na de fayu na de. junne booy loo. junne waaye junne na ma junne waaye. door nañu ko de waaw waaw. booy loo door na ko de. junne laa saf de. daa mel ni bu mat sëkk la kay. manquewul dërëm. ah waaw du ko nangu de daa ni daa bañ de. mu ah, ne ko doo wàññi ci man cent franc de. far yoo naa naa e way meer. le meilleur borom Zik FM. waaw sa combat nii rek lay mën a mel. xarit bu baax bi wallaay moo ñu bëgg kooku. door na ko waa ñii maa duñ dóorante mu daanu. dóor mu daanu maa du ci am. sol na ko. loolooy dëggu naax. booy law sol na ko naax. yàgg maa drapeau Saliou Khoulé ngi. waaw buur day pët fi nii. da koy plaqué da koy plaqué. na ne daa diis. junni nii daa mel ni mat na junni de. bii junni daa mel bu foofu yëre. baara moom it sama yokk ci cent muy junni. waa junne ñaar fukk cinq mille cent du mën a ñàkk yàgg maar. cinq mille ni ñu koy waxee ci anglais Babacar. cinq mille. Lamine boo ma dugalee ci anglais indil ma problème. waxal xanaa ma ne. ten ten sax mooy ten six thousand. lekk ba six thousand. ah moom mooy one two three four ah, de dama fi bañ wax lu tax ñu ramasse ma Lamine. yooyu du wóor. Lamine dégg nga li waykat yi waay nenañ ko ci nëbul waay. nenañ mbaata mbalañ ko ci nëbul waay. delloo ko ko yëf delloo ko yàgg maar bu la nobul nañ la delloo sa yëf. moo jaadu. mbaatama lañ la way de. waaw loolu moo jaadu. nopp nañ la yow. ah loolu def koy laajte. ku la nopp. ñu ma nopp bëri nañu. bëri nañu. yàgg kon jubóo. yàgg yow mii de. jubóo ndekete ma nag tànnagu la wala. yàgg xalaat nga def yëf ko de. yàgg nga ne nopp bëri. ay maar. waa Liberté 4 dégg ngeen li maar wax. yaa kees kenn du soxla. amagul dara jàppul sax ci coñcool kuy daw kay. góor a soog a nee na woon balaa 2019 bee jeex mu toog. ah góor a day wax rek ne ko jeena plaqué nañ ko ku koy def du ko waaj. góor a ko ñetti fan yi ci des de. a soog gaawal. aywa nañ ko fekk te tal ko. amiin waay góor a soog. tal rek a a yéen baax. waaw fekk tey tal. fekke mu ci lamin. boo fekkee rek yaa mën a net. macha allah na xarañ ki ko téye ko mën a net li yàlla nañu. waaw ana Père Max. Bermax gisuma ko tay de. ñëwul day dox combat. waaw moom temps yi daa ne ci combat. ah dangay koy doy dox rek. Eh, moo yor Bombardier léegi. moo yàgg na ko fàq na ko fàq na ko daal di suwaat. ndeysaan loolu rafet na. digganteem ak moom ndaw tey seen stade Léopold Senghor. le sol Bermax. blouson bu verte. lay yaa wax dëgg laa. su mbargaan ko fàtte. yaa wax dëgg. moo jëkk-jëkk yu ba di influence. zone waaye ay Mohamed Ndao Tyson. et le roi des arènes. l'homme de sa nation pour faale. le meilleur de sa génération. c'est le meilleur parmi les meilleurs. Ah, ah, personnalité plein. ah, ah na personnalité. la ilaha illallah. mais na gëstu lamb na gëstu na gëstu lamb baax na. Mohamed del ñëw ñun laa bëgg maag Lamine. waaw oh, na gëstu lamb. Mohamed Ndao del ñëw des fois. koo defal lu bari. waaw non lamb tax ñu xam ko Lamine. ba muy toj Mohamed Ndaw kese yem ca. waaw booba xamuñu ko waaye ba tey seen dëkk mu ñëw ci lamb. la ko àddina xam. di wax lu leer. lu mu wax communication ma lay set. Pape Ndiaye nee naa yàkkamtee ñibbi. ñibbi fan këram. Papa Ndiaye day moom. comme léegi day garde kër moom. ay mbiram yàlla ci des moom Ndiaye. ay mbiram kay waxuma la yàlla waaye. wax Adama na Seck. Adama na Seck da ku doy waar la. Babacar est-ce que mën ngaa taxaw lu yàgg. man bu la neexee sax ñu pompe. soo soo ba soo. soo carpé wala liiru liiru jàng. ana liiru. Aliou Agass sa mbër maa ngi. est ce que mbëram bi mbër la. waay wulli waay. eh waay. waay lii. waaw wulli lii lan la. moom du yow. waaw jëlal ma wulli mu ngay maye ji ca géwél ya kay bàyyi na ko xel de. wuli mu xel la wuli yor. wuli moom personnalité. waay wuli waay. eh waay. kenn du yow. liiru jan waaw mën naa yor aw ñey di ñaan ci picc mi. <laughs> aw ñey mën na koo yor di ñaan am picc. di la ci ginaar. maa la ko wax. liiru. liiru soppil jikko. ànd nañ Gambie ba Sénégal fi ñu dem mënuma xiitaa nañu ba ñëw Babacar abi suudawaat na mais fii balde daa bëgg song booy balde daa mel ni waa Xaadim Seck yow man de Xaadim Seck moom direct la ñuy def YouTube xaw ma whatsapp da koy trois appuis laa ilaha illallah góor gi étudiant ee eh, góor gi étudiant mama yaa yenu na ko mama yaa yenu na ko de góor gi professeur professeur de l'université waaye góor gi daf na tey lu doy ee eh, góor gi étudiant waaye góor gi Boy Balde daa mel ni ku waaru mbër lu xew bàyyi ba ma li ginnaaw li ma ko sànni ba ma ci sant naa loolu ah, après yow nga soog a ñëw mais il faut